bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi mbokki taaliba yi noo ngi leen di nuyu baax te di leen ziare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Sidil Mokhtar di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal baax Serigne Cheikh Jëmm Fall di ñaan mu yàgg fi mbokk itam euh, di ziar bu baax ak ñaanal euh, groupe cheikhrafal point com euh, ñoom ñi nga xam ne seen jéego yëpp mooy topp ci njàngale maam Cheikh Ibrahima Fall waaye tamit topp ci ay jaar-jaaram tey na xam ngeen ne ñu ñëwal leen fi gébbu gébbu faal nag di daara joo xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine moo ko sancoon ci ndigalal Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye tamit gor ko ci jamono bi nga xam ne ci lay gor Touba ci la mag ñi wax ne la daan def bu guddi jotee mu dem gébbu di ko gor muy daara joo xamante ne bi Cheikh Ibrahima bi Serigne Touba sancee fii daf ko sanc tudde ko wanagi Touba muy daara joo xam ne lépp lu fa mos liggéey da koo jëmale ci jumaa ji eh, tey na ñëwal ñëwal leen ci gébbu ngir rek jaar eh, jaar maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñi nga xam ne bawoon na leen fi eh, gis ngeen mag ñi nga xam ni itam ñi ngi fi ñëpp rek incha allah danañ leen tàllal sunu micro ngir fas yéene waxtaan ak ñoom ku ci mel ne Baye Amdi Niang waaye ku ci mel ne Baye Cheikh Baye Cheikh Dieng ku ci mel ne Baye Serigne Niang waaye ku ci mel ne Baye Mourou Sora Fall ñoom ñi nga xam ni seen i wayjur ñoo fi nekkoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine gis ngeen àll bi itam gis ngeen itam euh, yi nga xam ne ay bërëb la yoo xam ni bërëb yu am solo ci kanam tuuti dinañ ci dikk ay mandarga yoo xam ne Cheikh Ibrahima Fall bàyyi woon na ko fi kon dañ leen di euh, bàyyi ak euh, Baye Amdi Niang mu am leen lu mu leeral ci lu jëm ci teen gis ngeen mag ñi ñu ngi nii di dox ànd ak kilifa gi nga xamante ne bii tey moo jiite liggéey bi fii nga xamante ne ñoom lañu àndal ñëw fi tamit mu jàppandil nu bañ mën a am image yi yëpp fii ci Gébu muy Serigne Fallou Fall moom Serigne Aliou Fall Mbor. nga xamne mo jité jiite groupe serofal point com di ñaan mu yagg fi tan ko wër kon ñu ñew ci teen bi tey déglu bayis am di ñang mu léral ñu lenn lo xamni dafa jëm ci mandara gay teen bi nga xamne maam cheikh ibrahima fall moko fi gas lool bismillah ah bismillah jëmmi teen bi lañ bëggoon xam ah jëmmi teen bi moom teenu maam cheikh moom moo rëdal bopam de teen bi ah. tuddé ko teen pénc mm-hmm. waaw bi ma xamante ni si ñëw na fii mag ñi ñëw fii lërë de kër gee ànd ak sëñ ànd sëñ sëñ sëñ Moodu Mbenda sëñ Moodu Mbenda booba moo ko yoral oto mu ñëw taxaw fee ci sumpu gee daal kër gaa ngi nii doom yéen ngi door a si daal di ñëw rëdd rëdd teen bii rëdd jàkka jee rëdd armeel yee moo ko rëddal boppam de mag ñi nekk ci ñenn ñi di ko ay ayloo ñu diko ko gas dégg nga am na benn bambara buñ tuddoon mata nekkoon ci waaye nag biñ demee ba ci mujj gi Baye Saliou Gakou mi nga xam ne si moo nekk ci daara yi maam Cheikh ji moo mujj ci teen bi teen bi bënn waaw noonu bu neex la bu neex a neex neex a neex la waaw. depuis boobu ak léegi daayoon ah, doon na daw tuuti tuuti rek waaye dañoo mujj rawaat ko nag waaye fi mu nekk nii tubaarkaala ndox mu neex la am ci yëpp moo ko yore woon. yéen a ngi ciy xéwlu bu baax a baax a baax a baax bu baax sax jigéen ñi wérul yi fi mu nekk nii mbaa kuy wut saafara fii ngay ñëw jigéen ñi wérul ñi nga xam ne dañ leen di tere xorom fii la ñuy rooti wallaahi. jërëjëf euh, Baye Amdi Niang tubaarkàlla la nga kàddu yu am solo yi nga xamante ne bi leeral na ko foofu ci teen bi muy teen boo xam ne ba tey dafa des ay barkeelu. ndax wax nañ ne jigéen wérul sax euh, tey euh, su bëggee am tur tànk day ñëw ci teen bi euh, barkeelu ci mu mel ne teen bi ba tey des na ay jeexital yoo xam ne mu ngi fa ndax Cheikh Ibrahima waxoon na ne sax buñ koy ges da ngeen a mooy bët bi boo demee boo yëree teen bi sax dafa jàdd nga gis ne kon la Cheikh Ibrahima waxoon lépp feeñ na ci ba tey teen baa ngi ci pénc bi foofu muy foo xam ne daal kon dëkk la boo xam ni dëkk bu war a jara nemmiku ji la waaye loolu leer na itam ci boo demee képp danga gis loolu lépp di ay jeexital yu fa des mu mel ne lu mel ne loora ga it ñàkkul di ngeen ko gis ci image bi muy loora koo xam ne mag ñee ko gori woon waaye danañ ko leeral ci kanam mag ñi suñu dikkee ci kàddu yi danañ ko leeral muy mag ñoo xam ñoo ko fori ci àll ba rek bant ñëw samp ko jaayante ci seen liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall la su fekkee ne li ñu liggéeyal Serre Fall nangu na ne bant bi jeppi su nagul bu mu jeppi loora ga ci ne ci la euh, daanu waaye képp ku faatu fa lañ lay teg jullee la door la yóbbu Touba Baye Thierno Sall firnde la ci keroog ba mu ne du ma faatoo gépp lay faatoo ji wax nañ ne dafa wax ne su ma fa faatoo suñ ma fa yonoo jëm seeg man Touba malaaka yi di ma bàkkal ba waa armée li xam ne Thierno Sall gi ñëw keroog ba mu demee gébb faatu ci guddi ga ca loora googu lañ ko fanaan ndax indi ko Touba denc ko kon gébb ay jeexitala nga fa yu bëri yoo xam ne xam naa dañ leen di dem ak yéen ba ci kanam woon leen eh, jaar-jaar yi lu mel ne teen bi gis nga ci ngeen génn léegi waaye loora gi mi ngi fi su ko defee ngeen gis ko ci image bi ñu jëmi nag ca bépp ga nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall wéeru na ca wër na ko ba tàyyi ñu dellusiwaat ci mag ñi

kon mbokki julli yi mbokki taalibe yi gis ngeen ba tay eh, ci ñu ngi ci dëkk bu sel bi di Gébbu Fall eh, Gébbu nak di ñu ko waxee rek dëkk bo xamanteni bi bii maam Cheikh ibrahim Fall da ko bëggaloon boppam wax na ni bi mi ne ndiarim lepp da na fa di ñew Gébbu lu bëree bëree bëri bëri daan na fa baagante yu bëri tam ci yoonu mourid yaa koy dégg ci taarixu maam Cheikh ibrahim Fall way fi la xewé ci Gébbu muy dëkk boo xamanteni bi dëkk bu barkel la feesoon del nak maanaam dëkk bi eh, foo masaan romb rek Eh, benn mbedd jot ay kër këri këri yu dul jeex waaye xam ngeen ne tuubaa nag eh, bi sëñ Abdou Lahad wootee rek ñu bëree bëree bëri eh, dañoo daal di rek bàyyi dëkk yi daal di ñëw xanc si waaye teewul na ba tey gent yaa nga fa des dëkk la boo xam ni itam mag ñu bëri bëri ñu ngi fa dellusiwaat ngir di toppaat la nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall daggaloon na ko seeni maam waaye tamit ndaw ñi jamono ji ñu toll itam xam suuf si barke bi mu barkeel tax na ba. Euh, ñu ngi fay delluwaat di def di def ay ay ay ay ay gëstu waaye di di delluwaat tamit ngir bëgg a teg seen tànk ci suuf si nga xam ngeen ne déeg boobu nga xam ne Cheikh Ibrahima waxoon na ne waxuma ku ci naan sax waaye jur gu ci naan rek buñ ko tongtongalee ci dëkk ko ca lekk euh, texe déeg boobu fii la ne tey ci gépp ba tey jii déeg baa ngi am ndox e, te mag ñi ku mel ne ay Baye baax Gueye Baxdaas Baye Mor Bey Baye Maxu Jamese rek mag ñooñu ñëpp jamono yooyu ñoo fi daan tërbiyee maam Cheikh Ibrahima Fall Baye nga ni ko euh, mag ñi waxee comme yu mel ne ay sëñ am di ñang comme ni ñu ko waxee léegi ak mag ñi nga xam ne seeni wayjur ñoo fi nekkoon maam Cheikh Ibrahima euh, sedd lee woon leen ci daara ji ndax fii lañ séddale fii lañ séddalee mag ñi ci daara yi fu mel ne ay euh, sare comme li ñu ko waxee léegi nga xam ne wandu waaw la tuddoon fu mel ne Touba Fall nga xam ne Mbaam Fall la tuddoon waaye fu mel ne gébb gi nga xam ne mooy daaru moxit nga xam ne dégg ngeen ni ko mag ñi waxee eh, Cheikh dafa waxoon ne ku fa dëkk weesu nga murit <laughs> kon mel na ne dëkk bu doy waar la waaye tamit euh, lu baree bëri ci la fa xew ndax dugub jooju ngeen di dégg na Cheikh Ibra bayaloon na ko Sëñ Tuubaa muy fukki sàq ak ñeent fii la ko bayala woon waaye keroog ba Cheikh Ibra di wax naan Mikaayil dama na ko bul tooyal dugub bi Sëñ Bàmba ji mu ne ma jot na ndigal fépp lay tooyal moo weesu dafa dem ko ko tawloo ñu fomm taw fii fii ci Gébbu Fall fii la xewe tey boo ñëwee ci biir kër maam Cheikh Ibrahima dañ lay won sax fa Cheikh Ibra tëddoon te néegub càkkar ba te keroog bis bàyyi ma Fall Kumba ñoom rek di wax ak moom naan ko asamaan si xiin na te bu dawee bu tawee dugub dina la yàqu waaye fii mag ñi dajaloo nañ fi di sikkar di sikkar ba mu yàgg eh, wax nañ ne muy taw Cheikh Ibra eh, eh, gis rek mag ñaa ngi seelu taw bi di bàyyi sikkar si di def kenn par kenn di fattu ci biir néeg yi maam Cheikh jekki-jekki ba mu yàgg mu laaj kenn ci mag ñi ne ana ana ana ñu doon sikkar ñu ah, faal xam naa damaa defee ne taw bee taxoon ñu bàyyi ñu bàyyi sikkar si nee na mu génn toog bi ci biti wax nañ ne taw bépp du sotti ko ci kawam nag ñi bi ñu gisee ne Cheikh Ibrahima gi ci biti ñu def kenn par kenn di génn keroog la leen wax ne leen doom lu tax ngeen bàyyi turu yàlla ñu ne ko dañ doon seelu taw bi mu ne laa doom bañ a xëm bañ a tooy ne leen ñetti yoon la bañ a xëm bañ a tooy daan leen doom bu leen bañ a tooy ndax yomal xiyaam dara mu leen takk la taxalakk ci jaxan kon ba bu leen bañ a tooy loolu fii la xewoon ci géebu muy yu bëri yoo xamante ne bii mënees na koo nettali ci yoo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall def na ko ndax suñ dee wax dëkk bu mu dëkkal boppam bu mu sancal boppam euh, moomaloon ko boppam nga xam ne daana jógee njaarim bi ñu bisee njaarim mille neuf cent euh, ay quatorze wala wala quinze yooyu jamono boobu nga xam fa la bàyyi ko Thiès ñëw njaarim daalaan bàggante diggante gépp ak njaarim euh, koro bi ñu fi peese dugub ji itam bàyyi bàyyi Moussa Niang ñu ñu gën koo xam ci Moussa Niang kollu bàyyi sëñ Talla Niang mii tey di xalifa bi sëñ Talla Niang wax na ma na ma bàyyam njaarim la yanoo woon baskil ba keroog ñëw indi ko fii ci kébbu Euh, nga xam ne tey maam Cheikh sax nee na bi muy xaajale romb na ko moom ak oto boobu euh, am ñu ne commune car am ñu ne xam naa benn la ci waaye sëñ Modou Mbenda ko doon dawal keroog ñu jëm si dëkk ba moom sëñ Moussa Niang te la ko seerafar romb bi dina ko fekk ma gébbu waaye nee na keroog bi mu ko fekk baskil ba Cheikh Rafa la ko yóbbaale loolu rek ay firnde la ci ne dëkk bu bëri bàcc baax a baax a baax mboolem mag ñi fi yëkkati kàddu ñëpp nag ku ci mel ne euh, ni nga ko waxee léegi rek euh, seen am di Ñang nga xam ne bàyyi Cheikh Ñang mu mag nga xam ne nekkoon na fii ci géej bu fii la Cheikh Rafal tasaale woon daara yi ñii mu yabal leen Laska ñii mu yabal leen Baxdaas ñii mu yabal leen Dar Rahim ñii mu yabal leen Kawsara muy Wanduwaaw ñi demoon Touba Fall muy Mbaam Fall nga xam ne dëkk turu cosaan yooyu Cheikh Ibrahima ko soppi ndax fii Daaru Muhit la muy dëkku muccukaay bi kon defe naa ne mag ñooñu li liñ fi yëkkati ci ay kàddu rek doy na sëkk ci ñu xam taarixu dëkk bi ñu ngi ñaan ñoom ñëpp na suñu borom guddal seenu fan ak ñi nga xam ne jaar nañ fi ndax wax nañ ne Baye Amdi Ñang mii bay Cheikh Ñang bokk na bëkk néegi maam Cheikh Ibrahima Fall yi Baye Modou Sora Fall itam Baye Mor Ngone Fall mi ko jur maam Modou Fatma ko jur te maam Modou Fatma Cheikh bokk dëkk Njabi eh, Baye Serigne Ñang mii itam moom itam doomi bay eh, am Baye Baye Cheikh Ñang la mag ñi fi nekk ñëpp Eh, ki nga xam ne mooy Baye Serigne Dieng it moom it jarbaatu ma fal ku ma ñoom rek nga xam ne moo njëkk a doon jëwriñu Gébu Fall ak mbooleem mag ñi fi nekkoon ñëpp topp ci ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh yàlla yàggal ñu sax fi eh, te ànd ko wér ci barke baax a baax eh, groupe Lamp Fall maanaam groupe Cheikh Ibra Fall point com laa bëgg a wax ñi nga xam ne seen jeexital yëpp mooy toppaat taarixu maam Cheikh Ibrahima Fall muy groupe Cheikh Ibra Fall point com ñu jiital Serigne Fallou Fall di ñaan mu yàgg fi ci jàppandil gi ñu jàppandil bañ mën a toppaat taarixu maam Cheikh Ibrahima Fall yi ak mag ñi nga xam ne xëy na wax loo leen yombut waaye rek lépp di ndigalal kilifa di sant bu baax a baax mboolem ñu ànd àndaloon ñëpp ci wàllu caméra ci wàllu monté ci wàllu son ak yëpp rek di ñaan ci baax Sëriñ Tuubaa ñu am ci ngërëmam maam Cheikh Ibrahima Fall wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu